asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen podcast yeewu di leen gërëm di leen sant ci li ngeen koy déglu tey dañoo ñëw nag di waxtaan ak yéen ci différents types de portefeuille yi existé pour mën a garder ses cryptomonnaies comme ni leen ko expliqué woon bitcoin benn réseau peer to peer la ci biir réseau peer boobu noonu da am ay nœud nœud yooyu am nañu ci bëri yoo xam ni ci biir da ngay am benn portefeuille pour mën a garder ses cryptomonnaies mais comme ni ñu ko gisee tey nit yu bëri dañuy décider garder seen cryptomonnaies yi ci li ñuy woowee exchange yi ce sont des mais loolu wóorul donc tey dañuy ñëw xool yéen différents moyens yi existé avec ku si nekk tamit sa niveau de sécurité mais dans tous les xool loolu lépp après ça va dépendre si ngeen tànn fan bëgg a garder seeni cryptomonnaie alors balaa ñuy dugg ci type de portefeuille yi dañu war a xool ñeent concept deux premiers concepts yi ngi naan hot wallet ak cold wallet hot wallet yi ce sont des portefeuilles yi nga xam ni ils sont tout le temps connectés à internet et le fekk que ñuy connecté wu internet tout le temps day jox possibilité kenn ku leen bëggoon sàcc seen crypto monnaie il aura tout le temps essayer différentes techniques pour mun a jot yéen ci seen xaalis alors que cold wallet donc cold ci anglais moom mooy sedd comme le leen l'indique tamit mais wallet yoo xam ni ils ne sont presque jamais connecté à internet donc loolu moom moo gën a sécuriser parce que au moins ku leen bëgg a sàccoon déjà il aura du mal à identifier leen et aussi même bu leen identifier il faudrait mu jël temps wam wala il aura un laps de temps bu ndaw pour mën a essayer sàcc seen xaalis ndaxte connexion internet amul donc loolu mooy ñaari premier concept yi yeneen ñaari concept yi mooy software wallet ak hardware wallet software wallet comme le nom l'indique ce sera benn logiciel xam ni moom mooy faire figure de portefeuille temps dangeen koy yor seen ordinateur wala seen Raspberry Pi software wallet yi ñoom tamit ñoom ñoo nekk si téléphone yeek yooyu mais loolu dinañ si ñëw ci kanam alors que hardware wallet yi la plupart du temps ay clé USB lay nekk wala ay euh, petit euh, petite machine comme ay calculatrice yoo xam ni nit yi ñoom ñoo koy développer seen bopp à partir de différents composants dugal si ay logiciels mais pour gën a sécuriser encore seeni cryptomonnaies donc vous avez hot wallet versus cold wallet vous avez software wallet versus hardware wallet donc gis nañ ni soo leen bëggee garder seeni cryptomonnaie dañ koy def si ay portefeuille soit ba nga xam ne c'est tout le temps connecté à internet soit c'est pas connecté à internet wala pas beaucoup après am ngeen possibilité soit def ko si benn logiciel sur benn PC et cetera soit ngeen tabax seen propre hardware mais dans tous les cas pour nga am benn portefeuille cryptomonnaie mun nga am différents types donc premier bi mooy nga installé sa propre nœud nœud bi mun na nekk benn full node comme mun na nekk benn SPV comme mun na nekk benn full node boo xam ni block only la wala benn prunet node la dans tous les cas type de nœud yooyu yëpp mën nga si créer différents types de portefeuille et loolu ça te permet nga am différentes identités wala boog nga mën a éparpiller say cryptomonnaies si différentes adresses soo weesoo loolu am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy utiliser portefeuille mobile yi mo yi nga xam ne moom la ñuy dem télécharger si euh, App Store bi wala si Play Store bi bëri na après niveau de sécurité bi c'est pas am na marque yu bëri bon qui propose à peu près la même chose mais la majeure partie de portefeuille yi dañoo am benn communauté bu leen di supporter boo xam ne xam nañ développeur yi wala xam nañ ñiy liggéeyee ci équipe yi donc wóolu nañ leen à près loolu mooy différence yi la plupart du temps entre portefeuille virtuel yooyu noonu encore am nga lu ñuy woowee online wala web wallet si biir am na notamment yi nekk ci exchange yi mais ci Ethereum lañ koy gën a gis comme par exemple lu ñuy woowee MetaMask boo xam ni ci sa ci sa navigateur internet mën nga am sa portefeuille virtuel te loolu moom dañ koy déconseiller képp ku nga xam ne mu ngi ñuy déglu képp ku nga xam ne il tient à ses cryptomonnaies à partir de là donc am na lu ñuy woowee sànq hardware wallet yi ñu bëri moom la ñuy utiliser pour mën a garder seeni cryptomonnaies et enfin am nga benn solution boo xam ni c'est multi wallet genre nit mën na ñëw defar benn solution te loolu ñun dañ koy def boo xam ne da ngay boole desktop wallet hardware wallet mu defar la benn multisig quoi li ñu wooyee multisig mais loolu ça requiert bon certaines compétences techniques ak une certaine connaissance de comment fonctionne Bitcoin donc gis nañ instant yi nii que seen cryptomonnaie ba ngeen ko garder soit si benn logiciel si seen ordinateur soit benn application si seen téléphone wala boog en ligne peut-être si benn navigateur internet yooyu la ñuy woowee software wallet yi sinon mun ngeen ko garder si lu ñuy woowee hardware wallet dans tous les cas mun ngeen tànn ndax seen portefeuille bi ce sera benn hot wallet wala benn cold wallet maanaam est-ce que tout le temps dafa nar a connecté internet loolu nga xam ni wóorul que connexion internet bi dafa nar a ñëw seulement bu lañ ko soxlawee donc lii après am na yeneen solution un peu plus complexe mais mi ngi gën a intéressé ñi nga xam ni ison de grosses sommes en crypto wala dañoo vraiment soxla un niveau de sécurité supérieur mais sinon pour monsieur tout le monde bi nga xam ni il investi quelques centaines quelques milliers d'euros solution yi nii ñoo am et c'est largement suffisant après damay ñëw ñu wax en matière de sécurité lii lépp c'est bien beau nga am sa benn portefeuille boo xam ni mën nga fa garder say bitcoin léegi il faut ngeen xam na ngeen di sécuriser loolu en matière de bitcoin tout basé sur la cryptographie donc da am lu ñuy wax cryptographie asymétrique expliqué woon naa ko si benn si podcast yi boo xam ni ci biir da ngay am notion de clé privée clé publique clé privée mooy sa caabi personnel comme nom bi nu mu koy indiqué mooy li nga xam ne waroo ko partager kenn mooy li nga ne da ko war a denc jalousement comme su fekkoon sa caabi kër la la sa caabi kër benn la benn la te il est impossible nga dupliquer ko donc soo soo réeralee sa caabi kër maanaam doo mësati dugg sa kër te keneen du si mësati dugg te ko xas ba sàcc sa caabi kër mën na si dugg def lu ko neex donc demandez soo leen nekkoon si cas boobu nan ngeen di dencee seen caabi kër mbaa jàppaleen ni seen clé privée bi nga xam ni soo leen téléchargé ni ma leen wax dina leen wax ngeen garder ko il faut ngeen sécuriser ko gis nañ fi ay cas yoo xam ni ay nit a sàcc seeni crypto monnaie après suñ ko sàccee dañ seen sauvegarder donc il plusieurs moyens de sauvegarder cette clé privée là am na ñoo xam ne dañ koy def ci ay fichiers cryptés ci seen biir ordinateur am na ñoo xam ne dañ koy bind après ñu supprimer fichier bi y plusieurs solutions mais dans tous les cas daal gardez le jalousement sécurisez le parce que sans votre clé privée en fait yéen moomu leen dara loolu moo tax tamit encore une fois ñu ngi wax nit yi ñu def attention ci exchange yi parce que soo leen fa demee à partir de là ñu ngi laaj ku nekk mu dem def ay recherche am ku nekk xool solution bi ko gën a arrangé par rapport ak moom li muy def ak cryptomonnaie yi notamment bitcoin mais aussi ku nekk poser ay questions def ay tests et cetera su fekkee enjeu yi dafa réellement important bind leen ñu ñun mën nañ leen jàppale si ngeen tànn la meilleure solution pour mën a sécuriser seeni cryptomonnaie ñu ngi leen di gërëm di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeew